asalaamaaleykum asalaamaaleykum Amadou Baro Sénégal ah gars yi maa dellu si waat hmm, si waat ah si tolluwaay réew mi taxaw seetlu numéro un sujet bi ñu war a waxtaanee nag tey dañuy wax si agression yi ñu jógee si agression yi. ñu wax ci taf yëngalu politiciens yi nekkee si dëkk bi buñ fa jógee buñ fa jógee ñu wax si Gana Gueye Gana Gueye yaakaar naa Idrissa Gana Gueye la moom moo bañ a sol mayo bi mayo bi gaa yi di wax LCBT bi muy ñetti sujet ñetti sujet la kon après générique bi ñu dugg si agression gaa yi Sénégal gars yi dañoo bëgg a partager waa partager na ay image expliqué si image yi comprendre nga ñëpp jàllale message bi daw xam nga waa ji après si la won leen ne leen ñu mu partagé woon dafa juum ak yooyu ñoom seen dugg fi génn fii hmm, gars tamit da leen évité genre yu mel noonu waaye dégg na naa da leen évité genre yu mel noonu waaw melo boo leen sax au moins ngeen am nee na Horatio taxaw sax ci écran bi expliqué harmoniser loolu yomb na mais partager rek yow par partager rek des fois tamit day laaj tamit nga yow taxaw présenté wu gars yi sax gis la xam xam yow yaay kan sax hmm, léegi dama leen woon image bi image bi saa yi partager man sax man sax jotoon naa jotoon naa si jotoon naa télécharger image bi ba ma télécharger image bi ma ne xaaral tey su liggéey ba wàcc. mu ne su ma liggéey ba wàcc ma liggéey si ba ma liggéey ba wàcc nag ci laa gis sawaay message am bi yegg si heureusement heureusement parce que du parce que man maa ngi si doon commencé imaginer bu ko yor bu bu toogoon trois jours <laughs> quatre jours xam nga wax wax na affaire bi xam nga dafa jiw gars yi fu ñu jëm kon xaar lan ma ñëw andi affaire bi ñu xoolaat ko gars yi. gars yi xoolal image bu njëkk baa ngi nii.

vidéo qui m'avait beaucoup ému comme vous tous, ayant reçu la bonne info ce matin. J'ai immédiatement supprimé les images et vous demande de faire de même pour aider l'homme victime du partage des photos à préserver sa dignité, sa dignité et celle de sa famille. Nous ñëpp njaboot bu baax gis de J'ai pas dit que l'affaire c'est pas vrai y a pas de fake news l'information est vraie. gars yi dégg ngeen li sama waa ji teg ah Pape moo moo may boobu journaliste xaw ma journaliste animateur léegi nag insécurité bi <laughs> insécurité bi la tollu gars man nag damay ragal. est-ce que commencé wu leen seen divertissement yi ngeen di def mooy jamono ji ngeen rëccalee Boy Djiné ànd fi histoire bu kenn xamul ne Boy Djiné dafa rëcc kaso policier yaa ngi koy wër Boy Djiné dem defi inter def interview rajo rajo waaw i rajo bi i rajo la demoon mu dem i rajo toog fa di wax nu mu rëccee kaso injustice bu mu doon xeex nangam nangam nangam nangam wax ba pare dem këram demee këram takk ay bagaasam di dem Gàmbi si wetu frontière la a gaa yi moom ba mi ngi si kaso bi ba léegi war xalaat moom si lan la nekk jamono ji waaw parce que Kaam tamit xaw na critique Boy Djiné vraiment sénégalais aussi waa droit de l'homme ah ñiy xeex kaso yi ah les les longues détentions war ngeen xalaat Boy Djiné quoi en fait waaw léegi nag insécurité bi dañuy ñëwaat. jéem a xoolaat jukkiwaat vidéo xool. gars yi li biir témoignage benn waay ju gars yi jàpp dóor ko bu mu tëdd nii moom muy expliquer quoi déglu leen waa ji explication. après son bi maa koy xaw a kii quoi maa koy xaw a yàq pour waa ji anonymat am xam rek pour bañ a fay kàddu yi parce que xam nga rek waa ji comprendre mun na la gars yi woo sa la sa waa ji nga doon wane du agresseur comprendre na ngeen ma son bi koy xaw a brouillé waaw maa ngi nag ma koy xaw a yéexal wala ma gaawal ko ça dépend daal ba moom waaw bi bu ñëwee ma ma xaw a topp ko comprendre ngeen affaire bi foog ngay am technique quoi sinon rek du da ngay def vidéo rek da nga war a wane loolu la neex waaw aussi du da ngay def vidéo loo bëgg a wane rek wane ko. aussi du lépp la ñuy wane kon ngeen jangal ma ci côté bobu comprendre mo aussi moom day expliquer mom moko ko waaji ma àndoon xam naa sûrement moom lañ japp keneen ki raw Thank you. gaa nee na ko loolu andi fii la ko

gaay yi agression yi li gaay di wax agression yaa ngi nii la gaay di wax waaye nag ku si nekk ak sa xel ak sa xalaat ak sa stratégie ak li ma jot ëmb wax explication yëpp ñu xool xool maanaam affaire bi solution la ñuy andi ba ñu andi problème analyser problème bi andi solution waaw solution bi nag mooy bi ma andi muy teerutul wala di sport épreuve physique am réaction bu gaaw bu leer ne lii nii dalul xel ak yooyu sa xel ñaaw na dawal comme waa ji mba àll mbaaw bi waa moom ne woon na dem na ba yaram karaw yaram bi karaw yaram bi taxaw man man su ma su fekkoon man la damay replier damay dem waaw loolu acte de combat la acte de replier replier acte de combat la moo la moo leen ko waaw boo la waxee soldat bi boo ko laajee la mooy repli moom dina la la repli c'est un acte de combat yi bu leen dof wala nga takk teeru tul te boo takkee teeru tul sax ba fa nekk di jaay sa bopp ak sa bakkan jéemal sàmm sa alal bu xam nga bu naree kii nga seey xam nga bàyyi ko fa après mun nga lijjanti leneen ak leneen waaw il est entre temps gars yi rek par la agresseur yi parce que gars yi jamono jii jamono jii ñuy batee loi yi ah gars yi loi génnatul fa ñuy batee loi ak yooyu yaa ma gën a xam ñoom dañuy war a yeesalaat mooy deuxième point bi foofu la ñuy ñëwaat deuxième point bi. maanaam taf yëngal bi gaa yi nekkee léegi nag taf yëngal bi gaa yi nekkee nag dañuy jël ñaari bopp yi mooy côté A ak côté B opposant ak parti ak parti au pouvoir cof si benn amoon naa benn maire sax bu waroon boo xamante ne tamit dama leen koy may vidéo wala aussi gars yi ñu jukki ah léegi dañuy jukki rek taxaw seetlu wax explication comme yéen ngeen ko gisee rek ñu defee ko noonu gars yi moo ëpp jàmm ah gars yi yaa ngeen jëf léegi nag dañuy xaar ma andi dañuy xaar ma mooy mooy sama gars yi waa politique bi seen législative yi jamono ji moom ñeen jamono ji jamono ji bu xoolal politicien bu dugg si géej di dem nappi ji sax ànd ak mool géej di mbaari ji bu mu leen jaaxal waaw jamono ji <laughs> laa lay wax nii de coxeur sax xoolal <laughs> kuy coxeur sax bu mu leen jaaxal apprenti carapet sax xoolal antenne nañ ko doon xoolal pour rek dox sa maayal nga fal leen après la siy topp yéen xam ngeen boobu ba léegi ñu ngi leen di ñu ngi ñëwaat dañu laajaat ñu leen di falaat waaw kon nag xel yi laay waxal joxe ma consigne d' abord sama xalaat laay wax léegi nag dañuy dugg si si gars yi muy deuxième point bi générique bi bu jàllee ñu dugg si deuxième point gars yi. Mr. Space Ash man kick back to the family And I want me, I want me Till I can't feel But I can't blame myself for this shit New man that was born for this shit Of course I fucked up Who never fucked up and see me No hands Still I can't feel it You know what I mean I mean, strong what you expect from me It is what it is But I keep going on More like a phone Ga xoolal image bi xoolal image bi ñu nga waa ha sénégalais yi ñu fiñ ka koy seetaan gaa ngi ci wër si gi la nga gaay yi si mo mo nek ci si gi di kas kàmb gi kàmb gi gëna xor nak ga nga yaa ngi ñu seetaan mu ngi si biir kàmb gi am na ñett ñu nek ci biti ci biir ak mom ak kàmb gi misal la wax ma lenn wa du ma kat, wa du ma kat dama gis dal gis nga gaay yi taxawé ñom ñoom besetan monsieur le waaw monsieur Ousmane Sonko son excellence wow, président Pastef gis voilà Fallou candidat bi lu mu wax muy Awa jenn candidat eh, eh, di Yewwi Askan Wi man tey maay jigéen bi am ñeenti jëkkër xam nga benn góor moo daan am ñeenti jabar lislaam nangul ko ko man nag tey maa am ñeenti jëkkër yu amul njariñ <laughs> kon mooy yaa leen di kaw yaa <laughs> yéen a ah. <laughs> man tey maay jigéen bi am ñeenti jëkkër hmm. xam benn góor moo daan am ñeenti jabar hmm. lislaam nangul ko ko hmm. man nag tey maa am ñeenti jëkkër yu amul njariñ da ngeen weer wi lu bi am ñeenti jëkkër xam benn góor moo daan am ñeenti jabar lislaam nangul benn jigi benn góor moo daan ko ko waaye moom jigéen bi am ñeenti jëkkër kan moo ko war a nangul ngeen yaakaar candidat la nag day laaj ay droit kan moo ko nar nangul gars yi man naa leen politiciens yi salkar yi xaw ma nekk quoi. man nag tey maa am ñeenti jëkkër yu amul njariñ. ñeenti jëkkër la am mais ñeenti jëkkër yi amul njariñ mais kan moo ko daganal la ñeenti jëkkëram mu ban diine lay waxee kii kii ñan lay waxal kii déglu. kon mooy yaa leen di féete kaw. <laughs> waxin wala waxin. ca kaw. sëñ Fallou waaw bi lu mu wax muy Awa Dieng nag. Awa Dieng Awa Dieng Awa Dieng de gaa war nga naa la jënd ay dossier am ay yi man moom politicien yi damay génn rek daw damay génn daw dem sama yoon balaa may wax penalty gars yi du ma amee léegi nag. légui dañuy wax ci gane gay han gane gay bi mom day ñew tej tej affaire bi tej vidéo bi jéxal vidéo bi parce que mi nga bëgg yag han ah gay way tedd ci tëdd suba damay liggéey damay xëy Gana Gueye ah li mo jotta am nak ci information moy yi yi xam rek gay mom comme ni gay di amé information rek ni Pape Siré jotee information bo bo jox information bi ñu jot ko partager ko après mu ñu suñu ngoon si ne nangam nangam waaw moy gane gay ngene du dafa baña sol mayo mayo bu am drapeau lgbt mais hmm? mais nañ déglu gars yi ñu wax ba pare. génération à venir moo tax tey ñuy xeex ay valeur te valeurs yi daf ci bokk góor jigéen bokkul ci suñuy valeur bokkul ci suñuy yariñ te du tubaab bi mooy ñëw di ñu wax ñun nan lañu war a dundee du tubaab bi mooy ñëw di ñu wax nan la ñu war a organiser woo ñun on est un peuple souverain te dañu war a xool lan la askan wi jublu ñu jublu si parce que encore une fois ñoom suñuy serviteur lañu d'accord te askan wi il ne veut pas à l'homosexualité Gana Gueye feeñal na ko d'accord di ko jaajëfal baax a baax Sénégal ci àdduna bi di ko jaajëfal baax a baax moom Kona di jaajëfal baax a baax itam Moussa Camara di leen jaajëfal yéen auditeurs yu rajo seen kóolute ñun ñëpp i tamit euh, comme nu ko askan di defee wane sen jàppale jëmale ko si Idrissa Gana Gueye ak campagne médiatique bi nga xam ni ñu ngi koy dekk di ko teg si kawam te daanaka du dëgg du yoon bi mooy ñaari yoon bëggul sol lu ni mel président bi comme nu ko waxee gëm-gëmam la am dañ ko bàyyi ak gëm-gëmam parce que liberté suñu koy wax itam yow mënoo ni da ngay xeex ñàkk liberté bañ nit ki tamit am liberté liberté moy bokul sol mayo li nga xam moy borom ñaari tour yi nañ ko ko nangul mi ngi maram jaay mo nekkon si cadeau gi ci technique bi Birane Cissé di len dig dajé ay di ñëw si beneen numéro nees kii sax <laughs> idirisa Gana Gueye Idrissa Gana gay nga amee ré wala tollee si bañ sol mayo ha ah. <laughs> da ngay jóge ci dëkk bobu nonu bay poubelle yaa ma dégg nekk defe leneen waaw football moom football ay foola fola dóor dàqe bal jeu jeu football fo ah gayan man moom sénégalais la waaw te dafa lay dama dama lay laay biir rek mooy nga bàyyi football bi dem defe leneen bu la ko toll bu la tollee ba nga sol mayo waaw bu fekkee ne nag pare nga engagé nga fu ngay football solal mayo bi ngo football est-ce yaa ngi dégg yeen xam nga sénégalais wala sax dama naan man gaay dafa am ñenn ñoo xamantene dañuy na seen bopp jamono ji fi ngeen tollu ne dañuy na seen bopp parce que gaay yi fii ñu tollu actuellement ci mbiru LGBT man la xoolal lu ma ci wax yéen non gaay yi fi ñu tollu jamono jii nii nii nii nii nii nii ñu ngi sa buntu kër. ñi ngi sa biir kër yaa ngi xëy nii di leen gis di jàkkaarloog ñoom di <laughs> di duggante ak ñoom di génnante ñoom ñoom nag xam nga la mooy seen mission seen mission xam nga lan la muy dañuy maanaam dañuy instant bii nii nii gars yi xeexuñu de boobu gars laa lay wax nii ñii gars yi laa lay xeex nii xeexuñu de dañuy promouvoir dañ koy dooleel lii du xeex lii lii du xeex. waaw kon kon <laughs> kon Cheikh Omar Diagne mu ne si kaso bi gars yi sénégalais yi wax leen wax leen <laughs> Abdou Karim Gueye gënal wax ak gars yi tamit gis naa la ngay def ay photo naan ay nangam nangam yow fii nga fi taal drapeau bi gars di la ngawti ngawtee ba pare jaay la jaay la jaay la peuple maanaam maanaam jaay la opinion <laughs> internationale ak ngi Dame Mbodj ak ñoom seen fise leen dina leen fise vidéo boobu moo leen fise parce que fii nii ñu toll <laughs> xeex bi doo xam kan la ak nan ak nan nan la naka la parce que ñi ngi ko sekkal xeexuñu xuloowuñu dóorante wuñu non non non ñoom xam seen mission lal la manam gouvernement gouvernement bi nekk ci monde bi monde bi gouvernement Nous gis ñom dañ fay am ay ay ay élément ñom fofu lañuy commencer mu jaral len ñuy xex di xex di xex bu maîtriser xolal xaaj xolal président manam mu aduna bi ba dañ leen di wax ne leen pour être président de la république il faut être a trente troisième degré ni ko gars di waxee ah bi dafa am ay affaire yu fa nekk gars yi ñoom foofu lañ toll ñoom dañ ko jaayante dañ ko jaayante seppi loxo ñëpp nag si doxalinu réew ñoom rek ñooy doxal boo bëggee doxal da ngay tënk si ñoom li ñuy doxal ak li ñuy doxalee boo ko mënul ñoom am nañ ay pexe am nañ ay moyens waaw ñoo tëgg loi ñoo tëgg lépp waaw da dem nga ngay dem nga gëstu ji <laughs> nga dem gëstu ji nga dem gëstu ji fan la affaire yi jógee da mooy LGBT si branche la si franc-maçonnerie la franc-maçonnerie buntu boobu moom buntu boobu buntu boobu du ku nekk koy laal gaay di leen wax ne Amadou Barrow Sénégal la yow mi togg si vidéo bi soo abonné gul da lay lay ñaan nga bës tuus bu xonk bi boo bësee tuus bu xonk bi nga boole si cloche bi bu ko defee bu ñu àndee taxaw seetlu ñu njëkk si jot wala keneen ak keneen di si jot kon taxaw seetlu bi lii la woon gaay agression yi première parti deuxième parti mooy politiciens yi ak taf yëngal yi nekk ci dëkk bi jamono ji troisième parti bi nag mooy Idrissa Gana Gueye ak mayo bi kon nag gars yi wasalaam